ndax dugg ci lislaam mbir mu yomb la axakay soxlawul ku la ko defal wala boog ay xeetu ndaje ak i jotaay ndax dama war a gaawantu ci dugg ci lislaam wala dama war a xaar waxtu bi gën a jàppandi gannaaw bi ma pare sama yitte déedéet danga war a gaawantu ngir yéexi dugg ci lislaam am na ay gàllankoor mën nga faatu bala loolu waaye tamit dugg ci lislaam teel koo def njëkkalante la ci yiw te doomu aadama dafa soxla yiw lan laay def gannaaw bu ma bëggee dugg ci lislaam la nga soxla rekk mooy wax ñaari baatu seede yi ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ci ban làkk laa koy waxee mën nga ko waxee ci bépp làkk bi ma mën nekkul chart rekk nga daal koy wax ci làmmiñu arab ndax su ma ko waxee te comprendre ma ba ndax mën naa ko wax te comprendre baat yi déedéet mënta ñàkk nga xam baat yi lu muy firi nga fas ko sa biir xol waa tamit nga jëfe baat yi liñ lay digal ak liñ lay tere lan mooy maana ashhadu ashhadu mooy maa ngi saxal di nangu sama biir xol di wax ci sama làmmiñ waaye tamit di jëfe sama ay cër lan mooy maana laa ilaha illallah mooy amul ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla lan mooy maana anna muhammadan abduhu wa rasulu ni muhammad jaam la kenn du ko jaamu waaye tamit yonent la kenn du ko weddi loolu nag dafay waral ci yow nga daal di dëggal lépp lu mu xibaare nga topp ko ci lu mu digale nga bàyyi lépp lu mu tere waaye tamit nga daal di topp sunnaam nga daal koy roy ah loolu dégg naa ko bu baax léegi nag lan laa war a def mooy nga baamtu baati nga wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ndax léegi jullit la axakay alhamdulilah ci ngëneelub yàlla léegi nag lan nga may conseiller gannaaw bi ma nekkee jullit la ma lay conseiller mooy nga ñaan yàlla mu daal di lay saxal ci diine bi waaye tamit nga daal di tànn ay àndandoo yu baax yi nga xamante ne ñoo la ciy dimbali nga jàng lislaam tamit nga nëbb sa lislaam bu nekkee ajoo nga ko lan mooy ñaan bi gën a baax ci ñaan yi mooy ihdina siraatal mustaqim nga ñaan yàlla mu daal di lay saxal ci diine lislaam lan mooy tudd yàlla bi gën ci tudd yàlla yi bi gën a yomb tudd yàlla bi gën a yomb mooy wax bismillah ngir da nga koy wax jamono bi ngay dugg jàkk wala bi ngay génn jàkk da nga koy wax balaa ngay jàngal quran da koy wax balaa ngay dugg ci biir douche da nga koy wax balaa ngay sumi say yére balaa ngay jàpp balaa ngay lekk balaa ngay naan ak yeneen place waaw bàkkaar yi nga xamante ne defoon naa ko avant may dugg ci lislaam loolu nu muy demee lislaam bu ñëwee rek effacé na lépp bàkkaar yi nga xamante ne jiitu woon na ko lu du nag la nga xamante ne ak yi nga xam ne doomu aadama yi la ci alal wala ci leneen loolu nag mënta ñàkk nga daal di koy delloo lan moo war nag ci man gannaaw bi mu tuddee ñaari baat yi mooy nga daal di sangu lan moo tax may sangu ah, lu njëkk mooy jullit du muxu du wax mukk lan moo tax waaye lu mu war a wax kay mooy sami'na wa ata'na dégg nañ topp nañ ñaareel bi dangay sangu ngir laabal sa biti comme ni nga laabalee sa biir Ah. naka lay sangoo mooy nga yéene sa biir xol doo ko wax sa làmmiñ nga daal di wax bismillah nga daal di matal nag sa yaram yépp ci ndox ci ak raggu ko gannaaw bi ma sangoo nag lan laa war a def ah mooy waxtu julli bu jotee nga daal di julli waaye ah julli am na ci lu bari loo xamante ne tey jii tey ci ay baat mënuma koo wax lislaam nag diine bu yombal lislaam jafewul alhamdulillah naka lay jullee nooy jullee mooy nga daal topp jullikat yi comme ni ñuy julle waaye tamit nga daal di xool ci vidéo yi nga xamante ne dañuy jàngale julli ci ak bépp làkk bu mu mënti nekk loolu nag danga ko fekk ci message bi bu jeexee ci lien yi nga xamante ne dinañ ko fa joxe dana war tamit yow nga daal di koy jàng lan laay def nag gannaaw julli ah gannaaw julli la war mooy nga daal di jàng ponki lislaam yi di juróom nga xamante ni lislaam ci la aju ak ponki ngëm ba nga daldi matal nag sa lislaam waaye tamit nga daldi matal sa ngëm lan mooy site yi nga xamante ne danga ma koy conseiller gannaaw bi ma duggee ci lislaam ba ma mën a jàng lislaam site yi ma lay conseiller mooy site yi nga xamante ne borom xam-xam mooy situ borom xam-xam yu mag yi yi nekk al mamlakatu arabiyya saoudiya yooyu tamit danga ko fekk ci gannaaw message bi ci lien yi foofu naka laay jëflante ak samay mbokk yi nga xamante ne duñu jullit dangay ngay jëflanteeg ñoom comme yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon jëflantee ak ñu nekkuloon jullit ci jamonoom ngir moom wootekat la woon ci làmmiñam ci ay jikkoom ak ay jëflanteem léegi nag képp ko bëgg dugg ci lislaam waaye bëggul ko feeñal ci biti ay mbokkam lan mooy àtte loolu du charte nga daal koy feeñal mën nga tuub ci lislaam te doo ko wax say mbokk ngir lislaam ci njëlbeen sa diggante yow la ak sa borom lan mooy téere bu gën ci téere yi téere bu gën ci téere yi mooy alquranul karim ngir loolu waxu yàlla la lan mooy lu gën a saar bi gën a màgg ci alquran saar bi gën a màgg ci mooy fatiha loolu tax ñu koy baamtu ci ràkk bu nekk ci biir julli lan mooy aaya bu gën a màgg ci alquran aaya bu gën a màgg ci alquran mooy aayatul kursi naka laay jàngi alquran ni ngay jàngi alquran mooy ci dem ñu daal la koy jàngal waaye tamit ci déglu tamit jàngkat yu mag yi ku mel ni al cheikh al xusayfi wal xusari ak ñeneen ñu dul moom naka lay comprendre alquran na ngay comprendre alquran ci jàng téere tafsir yay firi alquran waaye tamit téere yi nga xamante ne borom xam-xam yu mag yi xeet bi seedal xam-xam taalif nañ ko fan lay fekkee tafsir alquran dama lay conseiller nga xool euh, mbooloo yi nga xamante ne ñoom ñooy muul kaamin ci madinatul munawwara lan nga may conseillé gannaaw bi ma jàngee alxuraan li ma lay conseillé mooy nga jàng ahadis yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yi wér lan mooy téere xadis bu gën téere xadis bu gën bu gën a wér mooy téere bi ñu tuddee saxiixul buxaari ngir xeet bi dëppoo nañ ci wéram ak gënam gërëm boroom xam-xam mag tamit gërëm nañ téere boobu waaye tamit maa ngi lay conseillé nga daal di dellu ci lien bi nga xamante ne moom mu nekk ci gànnaaw message bi ci téere ya nga mën a téléchargé lan mooy xadis bi gën a am solo ci ahadis yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bu gën a am solo mooy xadisu jibril alayhi salaam ngir dafa ñëw di leeral ponki diine islaam imaan ak ihsaan waaye man de tiit naa ni ah du mu am kàttan ci jàngal islaam déedéet bul tiit waaye wéerul ci yàlla yàlla dana la dimbali ci dox bi nga jëm ko diine lu yomb la yàlla na yàlla dëppale ci lépp lu mu bëgg te gërëm ko dana jàppandi tamit ci yow nga dal di jàng lu bari ci sa diine ci site yi nga xamante ne ñekk na ci gannaaw message bi ñu daal la koy may li ngi lay mujjee nag ci kàddu mooy di la dénk la yonent yàlla bi dénk sallallahu alayhi wa mooy ihris ala ma yanfauk da nga xër ci lu lay jëriñ wastain billah nga dimbali ko yàlla wala taajis waaye bul feebal bul lompoñ